même pas de maladie pour voler des milliards. Eh, fan la fay caution bi 3000 francs fan la ko fay. y' a pas de caution payée bonheur là 3000 francs la. non y' a pas de caution. caution bi 3000 francs man je l'ai payé. on m'a pris. je je ne reculerai pas. d'accord un jàmm temps. bàyyi ba suba. demain tu me convoques. damaa ubbi ñu dem. taal ñu dem bon on fait on fait léegi 3000 francs. ça c'est quoi. la caution c'est combien. toogal daal xaar ñu. yéen man maa leen di xaar yéen. non ki la ko yónni. kenn yónniwu ko. dañ koy yónni. waaw man faale wu ma Macky Sall. Macky Sall dugal kii kii maanaam dugal. waaye bàyyi ma waay. dugal fay caution 3000 francs man amul caution. je te le jure billahi wal kitaabi demain vous me verrez ici man ragaluma dara waaw ce Macky Sall voleur de merde. cet imbécile. waaw yow je le dis. maa ko wax man. jëlal micro enregistré wan nga mu dégg ma. c'est un imbécile. waaw yow nu traîner dans la boue tëdd leen nelaw 20 yeewu leen 6 heures du matin. mais pourquoi. sàcc 500 milliards la bëggaat. sàcc suñuy milliards il a il a volé milliard les 1 million de milliards léegi 500 milliards. mais ce qu'on vous nous vilipendez vous nous traînez dans la boue. je m'en fous. vous êtes ancien ministre. billahi wal kitaab tey ngeen bi. cinq fois. dinaa briser grille bi di ma rey. seen non écoutement bien écoutement bien. je me laisserai pas faire. waaw kaay taal oto di ngeen bëgg da ngeen bëgg scandale di ngeen am suba libéré ko mu dem. waaw y' a pas à négocier. libéré ko mu dem di ma yóbbu wala ma génn prise de part y' a pas à négocier. aussi waaw. libéré ko mu dem vous allez me mettre waaw vous ancienne ministre au Sénégal c'est vous, vous êtes de la merde vous ne nous respectez pas vous ne nous respectez pas moi je paye 3000 francs ñun ñoo gën Macky Sall mi ngeen di joojal ñun li ñu def ci réew mi Macky Sall def ko moi je paye se faire foutre rien à foutre de Macky Sall Macky Sall allez se faire foutre waaye yow yéen ba suba man je ne me laisserai pas faire damay jàmmaarloo ak yéen lii booy laaj yow